kon aliman lii nag moo doy waar gis nga bu doomu aadama tollee fii coow yëpp daf koy dégg lu xew parce que lisaanu xaalam rek lay waxal moom néew bi moom moom moom papa coon moom boppam rek lay waxal lu xew laa ilaha laa ji may dégg lan la wàcc leen ko ji lan la yéegal leen ko lan la day dégg baatu waali waali ku muy waxal ba ni ñu koy jàllalee muy jàll ñu naan nañu ko dugal ci biir almeeri wàññi leen coow li zikar leen dafay laaj lan moo xew bu nu koy jël ba commencé gas di wàcc mu yëg ni ñu ngi wàcc ñu ngi dugal lan moo xew lan moo xew ñu koy dugal ci bàmmeel ñuy jël suuf di tibb nga dégg ñuy jooy muy laaj lan moo xew parce que amul ku mu bokkal communication période boobu parce que boobu mu ngi ci nationalité yowmal xiyaam bokkul ak ñun bi ñuy dund mais mhm. mu ngi laaj lan moo xew mais lan moo xew bi ñun duñu ko dégg ah. euh, la daloon Fatima doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tollee fii ñu jël di ko dugal ci biir bàmmeel benn saxaaba bu ñuy wax Abbas nee na damay dégg suuf si di yàqamti pour ñu dugal Fatima nee na ma jël sama tànk ba suuf si ni ko te adda bii waaye yarul waay xaj ji naa ki bi bidaatin min rasulillahi kii ñu lay indil doomu yonent bi la. nee na Abbas nee na man maa wax loolu suuf si waaye nee na suuf si moom ma tontu ni ma ana laa aarifu nasab man xaw ma askan de bal man la amila saalihan fa li nafsihi borom jëf rek laa fii xaar. fii nag Seex Papa Thion toll fi mu toll nii dootul déggati ñun li ni moom dina dégg ñun li ni wax. waaye moom li muy wax ñu duñ ko dégg waaye lii daw yaram mooy buñ ko dencee ba maasale ba ñëpp jugandoo ba dox juróom-ñaari paa nag ah ci la malaay kay egg si ni ko ah bokkatoo ci waa adduna waaye yaa ngi bokk ci waa yowmal xiyaam waaye bu boobaa laaj yal na yàlla tekki làmmiñam ba lu nu ko laaj mu daal di ko tontu. amiin yaa rabbal alamin amiin yaa na yàlla nangu sa ñaan jooju oustaz Mouhamed Mbaye Alima Ndione. gis nga mhm. tey li réew mi di dund. Mhm. soppe yi doom yi xarit yi am di jàmm yi gis nga li ñuy dund tey. mi ngoog ñëpp a yëg euh, métit ñëpp yëg métit euh, ku nekk wax naa ni mën nga koo jaal sa bopp lii oustaz Mouhamed Mbaye wax léegi du jaas ci kenn dañuy ñaan rek yàlla na yéex te fekk ñu euh, ci lu rafet Euh, njabootam yi nga xamee yëpp Sénégal boo dee déglu ñi mu yàggaandal ay wëllëreem mhm. da ngay dégg diw bàllaago mhm. Fat Fall bàllaago Mbenn Kanji bàllaago mhm. Kane Gueye Papa Gueye Xaar ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc tellement cofeel bi nga xam ne moom la nit yi amoon ci moom donc euh, nii nag wax naa ne nii rek la mën a demee parce que moom moom moo toll noonu ku euh, toll ni coon bàllaago Seck Sénégal wax naa ni yàgg nañoo am dimanche waaye dimanche bi dina wute wala wute na ak dimanche yi nga xam ne moom lañ daan am mhm. dellu di ko ñaanal yal ko yàlla yërëm xaare ko aljana mhm. Sénégal ay seede booy déglu da ngay dégg ñu naan euh, ku dëggu dem na mhm. ku euh, ku amoon diine dem na Cheikh wax na ko sànq bi ñuy tàmbali euh, daawul xaar kenn ku ne ko waxal bu ma saan dégg mbaa gis loo xamante ni da koo war a wax dafay jóg wax ko kenn du ko wax loo donc ni ñu amoon habitude di ko woowee yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljana sekk Mm-hmm. amin ya rabbal mu ngi noonu na ko ñëpp ñaanal yërmande yàlla dottee ku ci kawam waaye tamit yàlla suñu borom euh, nangu ko ci ay loxo rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jëbal ko aljana gën yaa kawe ba tey ñu ngeek euh, soxna Fatou mm-hmm. Mata jóg foofu ca kër euh, Papa Thion Balago Seck ca Ouest Foire Fatou Mata ñu ngi lay nuyu di la jaale lu ñu bokk nga wax ñu exactement nan la atmosphère bi mel foofu ca Ouest Foire ca kër Papa Thione Mbalago Seck jërëjëf Cheikh ginaaw yooyu itam dama la jaalee li ñu bokk euh, muy euh, génn àdduna sunu papa ñu ñëpp di euh, papa Thione jamono ji nag maa ngi fii nga xamante ne moom moo di këram maag faama nag dañoo fi nekk situation bi lenn rek la muy tristesse naqar ak tiis rek lañu gis ci kanamu képp koo xamante ne tey ji ñëw nga fii ci këram gi eh, ngir rek bokk naqar li ndax tey ji mën nañ wax ne Sénégal moo ñàkk Sénégal moo ñàkk li nga xamante ne tey jii ñëpp da loo daan wax rek daga daan papa papa nga daan dégg tey jii kooku moom moo rek dal di dëddu situation bi nag mu ngi nii kër gaa ngi nii nit ñaa ngi nii toog parce que nit ñaa ngi fële nga xamante ne moom moo di ca armeel ñu ngi xaarandi nag ñu def li leen di rob bi mais instant bi artistes yu baree bari tey jii mën nañ wax ne ñëw nañ fii nga xamante ne moo di kër Papa ngir ñëw tamit jébbal seen jaal ndax lii tey jii dal ci Sénégal dafa métti mu betti ñëpp ndax ñun ñii nga xamante ne tey jii mën nañ wax ne dimanche bële passé rek gisante nañ ak moom muy kaf di ree comme ni ñu ko xamee saa su nekk euh, boo balaa nga koy wax papa rek reetaan na donc tey jii ñun ñëpp suñu xol dafa tooy tey jii wax sax pour ñu yëkkati ko day metti loolu euh, xanaa rek euh, ñu daal di rek jox kàddu gi faama moom itam mu daal di am lu mu ciy yëkkati bu ko defee ñu mën a wut témoignage nit ñi ñëw wax li nga xamante ne tey jii moom la ñu yëg ginnaaw bi fi papa Thione daal di bawoo merci beaucoup Fatima Diallo ñi ci plateau bi yëpp Cheikh Sarr Diallo la Alima ak oustaz Mohamed Mbaye jaale aussi euh, askanu Sénégal Diallo aussi waa jaspora ndax tey ñëpp daal di ñàkk comme ni ko Fatima waxee Papa Thione nag 1955 2021 66 ans da daal di noppalu ko xajoon na fi xajoon na fi lu bëri bëri bëri waaye comme ni nga koy waxee rek euh, yàlla bu bëggee rek euh, jaam de daal di nangu donc ñu ngi koy jaale waa këram comme ni ko Fatima waxee nag <laughs> mi ngi nii Youssou Dieng. macha allah ñu ngi lay jàll di bokk métit beeg yow di la bàyyi nga wax ak euh, askan bi bokk ak ñoom métit. waaw vraiment ñu ngi am naxar. Mhm. di nuyu Sénégal gépp di jaal senegal gépp euh, dafa doon loo xam ne naxar bi senegal gépp ko bokk papatoon papatoonu Sénégal la mhm. di naxar woo xam ne ku ci ne ci réew mi rek séex nga ak papatoon lu war a tax naxar bi nga bokk kook Sénégal gépp ndax euh, fii la juddoo ci réew mi yaroo fi màggee fi euh, def lu mu mën ci liggéey boo xamante ni moom la ko yàlla jagleloon ndax nit ku nekk ak jagleem ku xam Papa xam ne musique am berse képp kuy sénégalais de 1970 à nos jours doo wax la musique sénégalaise te Thione du ci am cër bu mag a mag a mag a mag ci mbind ci yeete ci yedde ci rafetal ci xool nu mu gën a rafetee ci mbind rek def na ko ngir baaxi ko réewam doon kilifa goo xamante ni ku ku ku njaboot la mm-hmm. ku yërëm njaboot la euh, góorgóorlu ci njaboot gi ko yàlla may rafetal digganteem ak ñoom ba tey moo ko may tubaarkàlla moom taxaw bii mu am vraiment ñu koy màssawu Sénégal képp ah, vraiment euh, naxar la ñu xëyee mm-hmm. mettit la ñu xëyee mm-hmm. waaye sant yàlla ndax bu la yàlla dimbalee nga am njaboot yar leen ci siraatal mustaxim ba boo dëddoo ñu mën la taxawu moom la jullit bu nekk di ñaan te yàlla defal na ko kon dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu fii mu jóge vraiment euh, xel mun na rafet ci moom mm-hmm. ndax li yàlla na ma ci jullit mooy jaamu yàlla ko xam coon seek xam ne ku amoon diine la mm-hmm. euh, waxtu bu jotaan day jóg jiite njabootam ngir ñu julli ci lu mu mën a ne bu julli jotaan da koy ba yar na ci njabootam nekk na ci euh, uuf njabootam te yor njaboot uuf leen bokk na ci jaamu yàlla donc euh, naxar la waaye nag euh, sant yàlla ndax yàllaa ko sañ kenn mënu ci dara mm-hmm. <laughs> vraiment metti na trop mais ñu fàttaliku rek ne Sénégal est-ce que ëppaliwuñu coon sax njabootam ci cër ndax boo gisee ni mu demee nga xam ne cër la bu senegal am ak moom. Mhm. vraiment koo gis ku ne bu la jaalee da nga koy jaal ndax coon moo ko séq ak Sénégal coon moo ko séq ak réew mi. vraiment muy moment boo xamante ni gis ngeen nu jamono mel. Mhm. jamono neexul feebar bi ne fi wax fa dëgg yàlla boobu ba léegi xamuñu fuñ jëm ak moom. Mhm. Euh, bugguñu sax mu demee nii waaye mënuñu ci dara. vraiment waaw famille bi seen problème yëpp mooy nu ñu mën a def ba yëf yi simple nu mu gën a simple rek gënal leen vraiment nu mu gën a simple gënal ñu fu mu toll nii li ñu soxla mooy ñaan li Papa soxla dëgg dëgg mooy ñaan fu waay mën a ne ñaanal ko ay ixlaas du doy loo ci def doyul vraiment yéene ko ko yàlla jéggal ko xaare ko àjjana teg loxo njabootam ñi ngi ñaan nit ñi fu waay mën a ne xam nañ seen cofeel ci Papa am nañ seen mbégte ak seen yéene ci Papa Thione waaye situation oblige mm-hmm. dañu toll ci euh, moment boo xamante ni dafa doy waar mm-hmm. vraiment que nañ ko ñaanal euh, waaw on doit rester prudent prudent effectivement ñu ngi koy ñaanal comme ni nga ko waxee rek mm-hmm. euh, kàddu gi seede gi yëpp benn la Fatima yow it ñu ngi la koy jàll di la ko mastaw bu baax a baax Fatima mu ngi noonu comme ni nga ko waxee rek Fama li nga xamante ne tey jii dégg nañ ko euh, kile di Youssou daal di koy wax comme ni mu ko waxee rek est-ce que gënuñoo ëppale Papa Thione nee na euh, ci njabootam effectivement parce que euh, ñëpp dañoo bokk ki nga xamante ne tey ji moom moo fi jóge waaye tam di jàll askanu Sénégal gi yëpp xam naa waa antenne ñi nga xamante ne ñoo nekk ci plateau bi kile di Chessa